waaw toujours ma wax ni sur ce plan là il faut pas ñu jéem a nax le président de la république ñun parfait euh, on n'a pas performé xam nga ko ci wolof maanaam xale yu bëri dañuy am seen diplôme pour am stage sax day am day problème te loolu président daf ci war a jug te année bii da ko déclaré woon 2016 ne année mooy anne de la jeunesse jàpp naa ne xaalis bu bëri sax ñu ngi koy def ci vacances citoyennes yi moo nañ koo jël transformé ko ay bourse jox ko xale yooyu au moins ñu man mën a am lu ñu préparer seen i dossier wala ñu mën a am lu ñu mën a demee dakaar pour pour déposer seen i dossier man mooy sama moom moo mas a nekk sama gis-gis ci loolu en tout cas ci wàllu liggéeyu xale yi maa ngi ci attirer attention chef de l'État lu bëri des na te bu fekkente ni bilee taxawuñ ci élection yi ñëw mën nañu am lu ñu bett ou bien jàpp na sax dañuy voter contre ñun waaye mën nañu bank seen loxo te bu xale yi wotewul mag ñu wote ah mën na bañ a baax si ñun voilà. waaw au conseil bi comme man assises nationales bokkuma ci gëwuma ko programme bi nga xamante ne bi léegi moom la Sénégalais yi euh, fal mooy yoonu yokkute léegi mu tudd plan Sénégal émergent man loolu laa gëm moo tax lépp lu jóge ci assises nationales yi man dama ciy maandu léegi nag ndax baax na ndax bonul ah mënu ma juger mais suñ demee ba commencé ko doxal ah dinaa xam fan laa ci taxawee waaye daal li ma ci li ma ci am na loo xam ne gis naa ko ci neexu ma ñu bëgg a jël ay maire ak ay président de conseil départementaux yóbbu fa man neexuma neexuma parce que foofu ña fa war a dem mooy ñoo xamante ne bi seen xel seen xalaat màcc na ci wàllu décentralisation ba ñu mën a dimbali sunu communes yi nga xamante ne bii dañuy doog a juddu ñu dimbali leen accompagner leen ba teg leen ci aw yoon man loolu mooy li nga xamante ni moom la ci waaye waaye au conseil boo xam ne daal day niroog association des maires du man moom vraiment d'accord ba ci li ci des nag moom ah nañu xool rek bu buñ ci tolloo luñ ci war a def rek daan daañu ko ci def comme d'habitude